maa ngi nuyu sama bokki soxna daara yi fi ne yëpp. nee na ngi nuyu bokki soxna daara yi nekk yëpp. ak sama bokki ndongay daara yi fi nekk yëpp. nee na ak mbokki ndongay daara yi fi nekk yëpp. ak sama bokki taalib fi ne yëpp. nee na ak bokki taalibeem yi fi nekk yépp di jiital ci nuyoo bi. nee na di jiital ci nuyo bi. soxna Maymuna moom Cheikh Cheikh Abdoul Ahad. soxna Maymuna Mbacke bintu Cheikh Abdoul Ahad Mbacke. nga xam ne sama doomi sëriñ yi fi ne mooy seen nee na nga xam ne doomi sëriñam yi fi nekk soxna May mooy seen kilifa. jaarale nuyoo bi ci moom. nee na mi ngi jaarale nuyoo bi ci moom. mu jaar ci soxna maam Marème. nee na mu jaar ci soxna maam Marème Mbacke Bintu Seex Sooyu. ak soxna Kunta. ak soxna Kunta Mbacke Bintu Seex Mouhamadou Fadal Mbacke. ak soxna Bali Muntaxa mi. soxna Bali Mbacke moom Seex Mouhamadul Muntaxa Mbacke xalifa général de Mouride. ak sunu doom yi ci des. nee na ak doomam yi ci des. te bu ma ci tuddee soxna maam Anta. nee na bu ci tuddee soxna maam Anta Mbàkke ak soxna musli ak soxna musli mu sëñ Modou Boussa Dieng ak soxna maam Awa. ak soxna maam Awa Mbàkke dana yóbbaale ñu ci des ñëpp. nee na mel na dina yóbbaale ñi ci des ñëpp. fii nag amatuma lu ma fiy wax. nee na fii mu toll de fii mu toll amatu dara lu mu fiy wax. ndax li ma war a wax ñépp nee na li mu war a wax lépp. borom xam-xam yi wax nañ ko ba mu jeex nee na borom xam-xam yi fi nekkoon wax nañ ko ba mu jeex li waral jataay bi rek dama koy tënk nee na li waral jataay bi dafa koy tënk yëg sëñ Tuubaa nee na yëg sëñ Touba. ak sant sëñ Touba. ak sant sëñ Touba. ak fas yéene jëfe ndigalu sëñ Touba. ak fas yéene jëfe ndigal ak sëriñ Touba. gàttandu bisam bi. nee na gàttandu bisam bi. ndax gan ku ko fonk. ndax gan ku ko fonk. da nga koy gàttandu. da koy gàttandu. dikkee nga ganale ko. nee na bu dikkee nga ganale ko. buy dem nga gunge ko. buy dem nga gunge ko. kon nag bisam bii. nee na comme bisam bii. waajal ko. waajal ko. mooy lii. mooy lii. waajale ko xam-xam. waajale ko xam-xam. ak alquran. ak alquran. jàppalee ko Seex Muntaxa. nee na jàppalee ko Seex mun Muntaxa. ci liggéey liggéeyam bii. ci liggéeyam bii. loolu rek ka waral suñu jataay bii. nee loolu rek moo waral jataay bii. ko ba ba mu jeex. waxuñu fi. nee na fi. ne. loo xam ne. bu nu sëñ Tuubaa bettoon. nee na bu leen sëñ Tuubaa bettoon. ñu rëcc ko. ñu rëcc lu na lépp li doon fi mën nañ ko na génnewul xam-xam. ak jëfe ko. ak jëfe ko. ak jàng alxuraan. nee na jàng alxuraan. ak jàngale ko. ak jàngale soññi ñi koy jàngale ak soññi ñi koy jàngale te loolu mooy liggéeyu Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké nee na loolu mooy liggéeyu Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké dama leen di jaajëfal rek nee na da leen di jëfal rek di soññi ñëpp nee na di soññi ñëpp ñu maase ñu maase jàppale seex Cheikh Mountakha jàppale Cheikh mun taxaa ci bisu Cheikhul Khadim bii ci bisu seexul Khadim bii di gàttandu gan ñëpp. nee na di gàttandu gan yëpp nag. di séentu gan ñëpp. nee na di séentu gan ñëpp nag. ñaan sëñ Tuubaa ñu ñëw ci jàmm. nee na ñaan sëñ Tuubaa ñu ñëw ci jàmm. nekk fi jàmm. nekk fi jàmm. dellu ci jàmm. dellu ci jàmm. fekk fa jàmm. fekk fa jàmm. bàyyi fi jàmm. bàyyi fi jàmm. lii jaaxal ñëpp. nee na li jaaxal ñëpp. sa sa safar bii. nee na safar bii. yàlla na saafara tawat ji. yàlla na saafara tawat yi. mu dem te duñ ko gisati. neena mu dem te duñ ko gisati. ak tawat ju mel ne moom. ak tawat ju ni moom. sëñ Tuubaa mi ñu koy defal. nee na sëñ Tuubaa mi ñu koy defal. attan na ko. attan na ko. man na ko. man na ko. loo ko sëf attan na ko. loo ko sëf attan na ko. dinaa ci joxe benn misaal rek. nee na dina ci joxe benn misaal rek. keroog rek maa ngi koy nettali. nee na keroog rek mi ngi koy nettali. dafa am ku doon wax ak sëñ Sohaybu nee na dafa am ku dikkoon di wax ak sëñ Sohaybu ci mag ñi ci mag ñi ne ko damaa gis yéen nee na mu ne ko damaa gis yéen sëriñ bi fonkutoon docteur nee na sëñ Tuubaa dafa mel ni fonkutoon docteur te yéen da ngeen di fonk docteur yi nee na te yéen sëñ Sohaybu da ngeen di fonk docteur lu ko waral lan moo waral loolu mu ne ko dañoo gisatut kooka nee na suñ sooy bu ne danoo gisatut kooka te kooka da daa wax ak jàngoro ji ci boppam nee kooka da daan wax ak jàngoro ji ne ko jàngoro bàyyil diw mu ba jàngoro bàyyil diw mu bàyyi ko ndegam nañ ko bàyyee baatin bi nee na nan ñuy xool docteur ñu xool docteur yi loolu njàngale mu rëy rëy la nee mu kon nag nañ sagal sëñ bi na kon nan ci saahir si ci saahir si te baatin bi ñu bàyyee ko sëñ loolu ab junj bu a xóot la nee na loolu junj bu xóot a bët la bu ñu demee nee na bu ba jamono laaj ba jamono laaj ki fi nekkal seexul xadim ki fi nekkal seexul xadim takk maskaam takk maskaam wane aw yoon la nee na loolu wane aw yoon la waaye xam ne fa mu jëm waaye nee na sëñ bi xam na fa mu jëm ca jamonoy peste ba nee na ci jamonoy peste ba te peste gën a metti choléra nee na moo gën a metti choléra bi menn mbokk dafa amee peste nee na menn mbokk dafa amee peste te booba dañ lay ber ci garab nee na booba dañ lay lépp di la fa fekk lépp di la fa kenn du la ñemee jege nee sëriñ bi génne ci këru njaareem bi nee na sëriñ bu mag bi génne ci këru njaareem bi waaxu jëm ca moom nee na waaxu jëm ca waa ji pest bi daal kilifa la nee na kilifa la waaye kooka waaye kooka dafa jeex tàkk ci sëriñ bi nee na daa jeex tàkk ci sëñ Tuubaa bëgg ko lool bëgg sëñ Tuubaa lool bi ko sëñ bi jubee rek nee na bi ko sëñ Tuubaa jubee rek mu ne ko sëñ bi bul agsi mu ne sëñ bi bul agsi sëñ bi faalewu ko waaxu di ñëw rek nee na sëñ Tuubaa faalewu ko rek ñëw ba jege ko nee na ba jege ko mu ne ko dama lay bañ a wàll dimbali ma bul mu ne ko Mbàkke dama lay bañ a wàll dama jàngoro ji bàyyi man rek ma dee mu ne ko bàyyi ma rek mbàkke man ma dee yow nga des fi di xeeti li bindee fi nee na yow nga des fi mbàkke di xeeti li bindee sëñ bi dikk ba ci loxo ba ci bopp bi nee na sëñ tubaa dikk ba ci bopp bi laal laal ko raay ko nee na raay bopp bi laal ko mu ne ñokket nee na waa ji nañ sëñ bi ne ñokket yëgatul dara ci boppam. nee na yëgatul dara ci boppam. sawar sawar goo xam ne mësu koo sawar ba muy ba ko dara jotagul sax. nee na sawar sawar goo xamante ni bi ko jàngoro dalagul sa mës sa sawaree. mu waaxu ànd ak ba ci kër gi. nee na mu ko Mbàkke. ne ko Mbàkke. ku dee yaa ko rey. ku dee yaa ko rey. ndegam mën nga ko rey. ku dee yaa ko rey. sëñ Touba moomee nag du fi jóg. sëñ Touba moomee nag du fi jóg. baatinam du fi jóg. nee na baatinam képp kuy màggal si. nee na képp kuy màggal si. sa pas-pas sëñ Touba sa pas tax ngay ñëw na la wóor ne sëñ bi lay gàttandu ne la wóor ne sëñ Tuubaa lay bi ma raayoon kookee mu tàggu pest ba nee na sëñ bi raayoon kookee mu tàgg pest ba baatinam du fi fi jóg mukk ku boo delloo sa kër moom nga fay fekk loolu rek laa doon laas nee la bi suba lam jekk mi ngi koy digle nee na sëñ bi nag naka jekk mi ngi koy digle xanaa soññee rek nee na xanaa soññee rek waaye moom ba màggal gi jàllee neena na moom ba màggalu daaw gi jàllee la tàmbali waajal gi la tàmbali waat waajal gi mës sa am xalaat nee na mës am xalaat lu dul sàmm li fi sëñ bi bàyyi nee na lu sàmm li fi sëriñ bi bàyyi. ak yokk ko. ak yokk ko. ak baaxal ko. ak baaxal ko. ba bu demee. nee na ba bu demee. man ko li ma dénkoon mu ngi nii. nee na bu delloo ci kanamu sëriñ Tuubaa mu ne ko li ma dénkoon. yàlla na yeex tam yàgg fi lool nee na yàlla na yeex tam fi lool. addi jii nag. nee na addi jii mu yore. li tax ma njëkk laa jox kado bi. nee na li tax mu njëkk a jox soxna Bali kado. te soxna may mag fi. te soxna may Abdou Lahad mag fi. da nga fee teewal Cheikh Mamadou Mountakha. nee na moom mii dafee teewal xalifa général des mourides. moo tax ma jox la. nee na moo tax mu njëkk koo jox. li gën a bëgg. nee na li mu gën a bëgg. te bis bu ne nga xëy ko jàng. mu ne mu xëy ko jàng. moom laa lay dàkkal. nee na moom la lay dàkkal. def ko sama kàddu sama addiya. nee na def ko kàddoom addiyaam soxna Ba. muy muy muy muy nooru na muy nooru daara yi eh, bi sëñ Basiiru def. nee na teg ci téere bi nga xam ne Cheikh Mamadou Basiiru ko def. ci xayaatu Cheikhul Xadim. te xayaatu Cheikhul Xadim. muy minanul baaxil Xadim. nee na muy minanul baaxil Xadim. ñaar yi mooy sa kado. nee na yi daal soxna Bali mooy sa kado. li ci des nag. nee na li ci des nag. téyel ko kado yooyu téyel ko li ay yére la yoo xam ne nee na lii ay yére la yoo xamante ni dama koo jëme ci maam jaara yi nee da koo jëme ci soxna jaara yi ma bëgg nee mu bëgg soxna may laat ñëw soxna may laat ñëw ma jox ko li jëm ci soxna daara yi nee na mu jox ko li jëm ci soxna daara soxna awa dem ñëw soxna awa dem ñëw ak soxna maam marem ak soxna maam marem soxna si nga joxal ma li jëm ci maam jaara yi nee na soxna si li nga joxal ko li jëm ci maam jaara yi li jëm ci daara yi soxna si jox ko maam mu jox ko ay bokki daaraam nee na li jëm ci daara yi soxna may jox ko soxna maam marem mu jox ko bokki daaraam li fukki mbubb la yu jëm ci maam jaar yi nee na loolu fukki mbubb la yu jëm ci soo ci maam jaara yi addiyee soxna jaar nee na addiyee soxna jaar loolu ay kaamil la bisimilah bisimilah soxna may ñëwal soxna may laat soxna si bisimilah soxna may laat ay kaamil la ngi noonu yéen ñiy jàng ak a jàngale tey yar waaw lii itam fanweeri mbubb la nee na lii fanweeri mbubb la moo jëm ci dongay daara yi nee na moo jëm ci dongay daara yi na ay mbasin la ak i borode nee na ay mbasin la ak i borode yéen ñi jàng alxuraan nee na yéen ñi jàng alxuraan yéen war a gën a rafet lu ngeen di sol ñëpp nee na war a gën a rafet ñëpp lu ñuy sol ndax bu jàmm amee yéen nee na ndax bu jàmm amee rek yéen la jërëgéen jëf nee na jërëgéen jëf baarakallaahu ah jërëgéen